arrête arrête de provoquer le peuple sénégalais. jërëjëf Macky Sall kàddu yi rafet na man kay damay laajte ndax kii yow la wala déet wala dañ laa changé kii yow la wala déet wala kuy wut moo mel nii am déet loolu laay laaj ndax yow kii yow la wala déet ndax sa démb ak sa tey wute na trop yow nii nga daan kaasale askan wi tey nga ñëwut teg askan wi ab coono teg leen fitna fat leen taraj ay jafe-jafe rek la ñuy dund nañ déglu kàddu yi nga xam ne ni daana ko yëkkati du di ko teg ci Ablaye Wade. lu ëpp tuuru dañuy ëpp na waaw Ablaye Wade moomul réew mi. te waruñ nangu li mu bëgg a def mu def ko ci Sénégal kilifa yi nag kilifa diine yi war nañu wax kilifa yëpp war nañu wax ndax bu ñu waxul léegi ce sera trop tard ñaan aussi parce que li mu bëgg a def confrontation dana am c'est inévitable su amee maa ngi ñaan armée nationale xam ne si une armée nationale ni armée républicaine yëpp def ñu féetee côté askan wi. laay la dégg ngeen ëpp ndafa li muy wax léegi bu ñu jógee ñoom nag di xool ñoo ñeel askan wi. armée bi ànd ak état bu boobaa lan moo mën a xew jàkkaarloo dina am de. waxatuma la ak naan dañuy jéem boom wala di bundu xadal population yi te population yi dinañ taxaw faire face à Wade. c'est ko Macky mu ne Ablaye laay askan wi dinañ jàkkaarloo moom xeex lii nag 2012 la ko doon wax askan wi dinañ jàkkaarloo ak moom xeex ñu dem ba 2023 Ousmane Sonko nekk fii war a jàkkaarloo ak yow askan wi xeexle ko. bu baax a baax nañ ci bàyyi xel nañ kon ne ci video bi. donc ñu ngi ñaan na retirer son projet la boo nga xam ne amul bopp amul genn li mu bëgg si Sénégal mënu fi am. mbokk yi kon dégg ngeen kàddu yi Macky Sall yooyu nga xam ne daanu ko yëkkati jamono yam daan campagne jamono ji la ko daa yëkkati booba nag mi ngi wut mais bi mu amee dafa soppi ko bi mu amee moom Macky Sall dafa soppiku dégg ngeen kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko yëpp di ko wax te jamono ji fi Ousmane Sonko taxaw sax moo gën a dëgër fa mu taxawoon ndax moom yaa fi sës la faloo rek te Ousmane Sonko askan wi ñoo ko bëggal seen bopp ndaw ñi ñoo ko bëggal seen bopp. léegi nag dafa taxaw ne ala mik ala mik la taf ne Ousmane Sonko du dem élection nañu wax nag fu mu ko teg.